xoolal ñoom daal fooleen leen fekk nekkati bu ñu tourné jiw defuñu dara ci seen saali lañuy toog fekk fu mu gën a féexee ñu ràcc fa gis nga xo waaw ah, kay toog ci sa bi ràcc. waaw yéen. <laughs> Kya. waaw ci loo nekk. namu la. maa la xaw yaa ngi ci jàmm. waaye yéen daal boo ngeen tourné jiw ci terrain bi yéen a fi tam. waaw nu ñuy def gis nga dafa tàng. mais bett ngeen ma de bu ngeen di ñëw du ngeen tàggoo yéen waa Télé Sénégal am ngeen noo leen mel de <laughs> lii lañ bëgg ah en tout cas bett ngeen ma de lii moom nañ la bettee nii yaa ngi jongo ma nii. yow eh, waxal waay pourtant dama génnoon nii di soog a ñëw tàngaay bi ma bëgg rey ma ne xaaral ma tëdd jàkkaarloog télé bi. c'est que li la doon metti mooy ñu fekk la nga def chërëg ti set. bu leen yéexoon tuuti loolu ngeen di fekk ma def. non non doo de mënuma supporter lii. <laughs> Kya ah, nuyu nañu la. mais fay naa leen bu baax di fay aussi euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñoo leen ñoo ñuy seetaan euh, waa Télé Sénégal di leen nuyu bu baax a baax a baax ci bésu tabaski tamxarit bi aussi di leen euh, ziar. xam nga li ñu indi ah man de ma tiit man jamono ji man ma jaaxle sax loolu war a indi yéen. sa fan si daal ñoo naan ma ñoo may laaj di réclamer naan est-ce que Kya mii war naa mën a mooñ cere. ah waaw Kya nag je pense que mooñ cere war na ko mën ndax maamam daf ko yar. ci mooñ cere xam nga ay tay ak bomb baleeg fobeere ah waaw jeeg laa nag jigéen laa nag tamit ah waaw tamit. kon xam naa tey dina leer sa sa sa sa soppe yi lay seetaan bu ko defee ay dandooy xam na yow mi doo moromam. déedéet man duma morom benn jeeg te jeegantuma ak benn jeeg tamit. cere daal tey dinañ xam ndax yow mii mën nga ko wala ah waaw nañ dem essayer rek xam naa ne moom li ma sama maam jàngal bu dee fàttewuma ko normalement war naa mën cere. waaw jigéen day mën a waaye problème mooy bett ngeen ma ñu ñu débrouiller rek <laughs> sama yaay normalement war na denc ay dugub ak yooyu sama maam surtout moom ay la tendance ay période tam xarit buy waaj a ñëw day jënd ay dugub xam nga soq yeeg ñebe yeeg genre yooyu yëpp léegi bàyyi ñu jub dama xool. mag dafa mat a bàyyi ci réew. foo leen fekk dañuy denc yow. léegi yow baax na nañ ko topp ñu xool mag yi dañuy denc yooyu yëpp fi mu ne amoo lay. ki yaa ki yaa ki yaa fi mu ne nii yow li ngay wax tey ba doo mooñal sa fanse yi gisuma ko. tey foog nga mooñal ñu cere. Mhm. dëggul xool ca waañ ba rek man ni dañ doon wax naan. dégg ba ba mu set nañ leen ba mba cere. xam nga lay amut fi mu ne nii maire yi <laughs> maire yi dañuy denc dugub dañuy denc mboq dañuy denc soq waaw ko defee kii yaa même bu fekkee daa bañ a mooñ bëgg cee génnee noonu loolu du ko ci génne. Euh, yéen taxaw leen rek di ko xaar noo mën a def rek xam naa soq moom manqué wul ci kër gi moom man maa ngi koy xaar fii dafa gën ci réew. dafa mat a moom mag la boo xam ne moom yi lay def. Mm. dafay dafay dafay prévoir fa même daal. moo tax ma dugg ci biir néegam gis fa lii ma ne ah yow kii soobee na ma. baax na donte newu fi sax waaye sauvé na ma. Ah, baax na kon yow dañ lay daal di bàyyi nga daal di nga daal sebet ba mu set. kon ñu sebet waaw. sebet rek sebet rek fóot boo ci def rek di nga ma rusloo. dégg nga lii. <laughs> jeeg buy togg nii lay def. di teg bu baax nii la war a nii la war a mel. xaaral ma woon leen. day sagal boppam léegi tegal ma ayca. engagé na xale bi xale bi dafa engagé. defal lii ma xool dara bëgguma mu rëcc ma. Mm-hmm. bu ñu defee ndox xam nga ngay def ndox ba bari. bàyyi ko tuuti xam ne affaire yëpp dafay toog soq beeg yooyu yëpp toog ci kaw. nga xent boobu commencé nag def ndox raxas sa bet bu baax a baax. léegi soq beeg yëpp dañuy tëmb ci kaw nga xent ndox mi na doo ko def beneen ndox booy sebete. yaa xame nga xam nga ñaata façon dugub moo am. Euh, waaw. ban la. am na dugubu soq. dugubu soq mooy lu ñu soq ba pare. waaw mais am na dugubu suuna. dugubu basi ak dugub soq. soq mooy dugub bu ñu jël ba soq. basi da laa xam kon. suuna. ñaar yooyu am. des Ah, kon ndax du dugub bii nii nu mu ti soq dafa am suuna ak saaña. ah saaña d'accord kon naa ko ci dolli. xam yow buñ la doon tegal comme xamoo suuna ak saaña kon yow loolu du ma la mais beneen yoon pour buñ la laajatee suuna ak saaña moo am te suuna mooy bi dugub bi gën a neex saaña dafa lebe. ah d'accord d'accord kon loolu sama maam dafa ma ko fàttee jàngal baax léegi mboq bi lu mu ci doon. mboq bi boo ko gisee ñu di ko def ak sànni ci tuuti ceeb sax dafay tax euh, day gën a dëgëral dugub bi te day koy gën a neexal. yéen tam nag xam man maa jàng liggéey nag ah, man nii la mën damaa ko des yi aywa wàccees nga déedéet si man euh, je suis de Tivaouane waaw je suis de née de Tivaouane et tout. moom bi am na xale jigéen yoo xam ne moom. seen wéy yi dañ koy pose ba mu gudd ongle yi du ñu mën a sebet. sebet sebet rek jéeg bu ko mënul nag moom vraiment nag. waaw bàyyi tooñ xale jigéen mën nañ de. xale yi dañoo mën ñëpp a mën. kon yéen jéeg ñi nga xam ne yéen nekk ci kër yi te seen jëkkër yi képp leen yaakaar na doo leen am wujj. dem leen ngeen mën a mën a mën a mën a mën a sebet mën a defar euh, cere balaa ngeen di am wuj mu kii yaa ah, mën na naa ko gaa ah pour ci ñu wanagul sànq yow sebet bi rek nga gis nii ba may yow tuuti rek euh, soq bi fi nekkoon yëpp wàññi ko na léegi lan pare nga sebet non waaw sebet naa ba pare léegi nii dama koy xooj bàyyi ko tuuti mun naa ndox bu bëri comme ça day tax sunguf bi day nooy en plus euh, cere bi dafa xam dafay neex ba dafay nooy waaw lu doon dugub yi nga xam ne sebet bi dafay dafay dafay siiñ sunguf bu siiñ daal laa ci kon ñu xaar comme da koo xooj ñu may ko tuuti rek baax na léegi yow xooj nga ko boobu ba léegi loolu lan ngay def léegi dama koy wicc nag euh, si inde bi comme ça mu mën a siit balaa ma koy yóbbu si euh, machine walkaay bi. ah kii <laughs> dama gëj gis kuy dem machine ba naan day walu. Ah, ba léegi sama maam ma yónnee de ba léegi day defar dugub ba mu baax ne ma dama walali ma xale ne leen def loolu waaye. <laughs> li nga koy def nii nga yaakaar ne du am suuf. non du am suuf li mooy yaak. boo ko déggee mooy yaa léegi bu ma tibbee nii si kaw xeer yeeg suuf yëpp dafay des ci suuf xam nga moo gën a diis day des ci suuf xëy dinaa la ko woon à la fin. daal man bëgg naa ci boo foo foo ko fëggee guddi ne ko lii laa bëgg mu toggal la ko wala mu defaral la. waaw loolu am na ci solo quand am na ci solo te gis naa ne nag sénégalais xale yi léegi nelawatuñu de mm. jànk déedéet. dama gis ñoo xam ne soosu cere sax dañ koy jënd ki jamono ji nii tam xarit bi ñu bëri dañuy togg ba pare dem jënd cere ah ah chéri loolu loolu mu ngi am ba tey kon yow doo def loolu déedéet vraiment ñun suñu waa kër vraiment xamuñu loolu mm-hmm. waaw non non non ñun dañuy comme nii ngay fekkee ñuy def nii mm-hmm. ñu dañ koy yàgg di def à chaque année am nañ sunu tànt boo xam ne nag quand même moom moom ay période tabaski korite tam xarit mm-hmm. ak lu kër gi mën a xumb xumb lépp lu fi mënti am moom mooy gérer togg bi mais koy def à l'avance après moom day ñëw jour tabaski wala korité gàmmu korité yëpp mooy doog mooy togg. ci moom ngeen di jàngee yëpp ni waaw gaa moo jàngal togg quand même euh, Nabou Fall tudd <laughs> waaw yu mel nii buñ ko defee ba pare moom mooy ñëw dem togg soos bi mais ñun cere bi sama maam la ñuy topp. ndeysaan mais. Euh, moo leen jàngal mooñ. moo ñu jàngal mooñ dem si yàlla si yàlla dafa def euh, mu jógee fi yàggul dara mais li mu ma jàngal moom sérieusement ma ko ndax maa ngi nii tey bett ngeen ma te terewul maa ngi ci. donc li ma jàngaloon rëccu ma ko. te dafa mat a ci réew. dëgg la dëgg la. yàlla xaar ko. amin amin amin donc ba léegi ñu ngi ci yàgg bi. nii ngay def pour mën a dindi xeer yi. waaw parce que damay faral di gis des fois nga jënd lu ci mel ne fonde wala xeetu dugub yooyu nga koy lekk muy am. non non lii moo koy waral nag boo ko yaagul comme ça euh, xeer yi da si topp te parfois nag nit amee paresse boo xam ne. xeer yi doo ko mën a wala nga yàkkamti doo mën a topp xeer yeeg yooyu yëpp voilà. kon suuf bi moo nekk noonu si taat bi. mu ngi kon mu mel ne ajaratu Kya sebet na ba mu set yàgg na ko nee na ba benn suuf topp ci waaw damaa bëgg lu naturel loo xamante ne li ngay lekk danga koy xam. ndax tuuti euh, mu daal di wow ci ker gi après nag ñu def ci siwo yóbbu mu wali kon ñu xaar ñu dem ak moom machine ba ndax daal xam naa ne man gëj naa gis kuy dem ci machine naan day dem wal sincèrement gëj naa ko wa ko gis tey nag kon di nga ko gis tey xam naa ne boo demee ci machine ba aussi di nga fa gis jeeg bu ne waaw jeeg bu ne dañ ko fa gis ñuy waajal seen tam xarit xam nga donc loolu